asalaamaaleykum mbokko internet 24 actu ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk ñu leen dalalaat ci seen beneen numéro seen entretien tey nag ñuy dalal ki nga xamante ne nii moo di Serigne Modou Bara Dolly kenn du ko présenté di ci mim réew rawatina ci histoire politique mu ciy def lu am am solo rawatina fii ci Touba tey nag moom lañ fekk si dëkku maamam di Dioli li ñu def lu dul bàyyi ko rek mu daal di nuyoog mbokku internet yi Serigne bi nuyu naa la. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi lay fay soxna si Bousso. Euh, di la siyaar ci weeru koor wu tedd wi di yëkkati suñu siyaar bu mag euh, euh, jëmale ko ci ki nga xam ne moo fi nekkal yoonu murid di sëriñ Muntaxa xaadimu rasul ci mu mat sëkk xaadimu rasul ñëpp gis ko ab taxawaayam ñëpp gis ko démb rek ku xool ay imaasam sa yaram dafay daw kon ñu ngi koy siyaar bu baax mbakke di ko ñaanal mu yàgg fi di ñaanal xalifu dëkk bi nga ñu fekk Daaru Salaam Doyoly di sëñ Maam Balla ak sëñ Baara mi nga xam ne sëñ Baara Doyoly di suñu waajur ñu yàgg fi loolu ci wér. Mbacke dégg nga sànq ni ma ko waxee nee naa la politique kenn du ko wax ci mim réew te sa xel demul ci yow lan moo la may loolu. waaw li ñu may loolu mooy ñëpp xam nañ ñu ci sunu engagement ñëpp xam nañ ñu ci sunu sincérité ñëpp xam nañ tamit ci sunu loyalité boo xam ne nii bu wér la boo xam ne képp kun àndal da nga xam ne yow lan àndal engagement it bu jotee ñëpp dañu xam ne ay nit lan yoo xam ne yuy engagé wu lan euh, ñaareel bi it euh, ñu sincère lan ci ànd parce que ay nit lan yoo xam ne nii kun àndal ñëpp dañu xam ne moom lan àndal euh, kun àndulut ñëpp dañu xam ne maanaam duñ doon nit ñoo xam ne daal dañuy teg fii tànk teg feneen tànk loolu nag ñaare ñetti ponk yooyu bu dajee ci yow ñëpp sa liggéey lu mën a doon ci àdduna loo ci doxal lu ne jël loolu bu dul politique sax di ko doxal loo nekk rek da nga ca war a mën a am ràññiku bu wér a wér gis nañ ne tamit yaa ngi politique ni ma ko waxee sànq ñu bëggoon a xam lan moo la ci dugal. waaw politique euh, li ma ci dugal mën na noo wax ne jamonoy président Wade la boobu ñu ngi koy woowee maître Wade euh, mën na noo wax ne toujours damay jël ci benn fàttaliku jamono yi Cheikh Abdoulaye Lahat xalifa général di mu Mouride di ñaanal xalifa am sëñ Sidi mu yàgg fi lool ci wér euh, jamono yooyu buñ fàttalikoo ba mu doon wax naan joxe ndigal ci Abdou Diouf jamono yooyu fekk na may politique. di jàppale parti démocrate muy PDS euh, ndax jamono yooyu sax sama waajur tàmbali dugg ci politique bi euh, mën na noo wax ne jamono yooyu fekk na man maa ku ni wax Abo Bousso ci Mbàkke ak Moustapha Tokala euh, ak sëñ Ndaa Mbàkke ca nekk ca Darou Moussi jamono yooyu ñuy ma ci ci laa doon jàppale PDS keroog bi laay Wade di wax naan sëñ Abdou Khadir mooy sama sëriñ ci Mbàkke am na ku ni wax tey Mor Anne Gueye seere la ci boobu fekk na may yëngatu ci PDS ma nekk ndaw engage ci lool. di ci dox di ci dox ba ni sama waajur ñëwee ànd ak man euh, fekk ma ci biir PDS ñu ànd ak moom topp ci gannaawam di liggéeyal pedes moom it tey jii ba tur woowu sax ñu ñuy dàkkanteel muy sëñ Modou Bara Dolly Bara Dolly jooju juddoo ci suñu waajur ndax moom it engagement bi mu ñëwee engagement bi mu am ci Ablaye Wade ak sincérité bi ba jamono yi ab Ablaye Wade mu metti lool ñu bari di daw ab Ablaye wadd moom mu jàpp lay Wade egg na ci ñu yebal ay nit di ko offrir lu ne ci àdduna mu mu mu mu koy delloo di wan ne moom li mu nekk nekk na ca ba nga xam ne tey indi na ab Ablaye Wade ci pouvoir diirub li mu ànd ak Ablaye Wade ci pouvoir Ablaye Wade mu nekk ak moom ci pouvoir def ko sénateur def ko député euh, def ko jëkk koo def député député bi mu nekk député boobu ay Idriss Seck ay Pape Diop ñoom ñëpp ay ministres yu bari tey ba ci président Macky mi mën na wax ne booba fekk na sëñ Baara nekk euh, quatrième vice président assemblée national bureau lu baree bëri ci parti démocrate yi yu doon liggéey di ko am waaye Ablaye Wade bi mu nekkee Paris ci bureau boobu du kilo la ko doon liggéey ñoom ñëpp ñoo fa doon ñëw kon mën na wax ne mu doon bunt boo xam ne nii euh, ci wàllu sëriñ ak politique. Euh, mën nañoo wax ne ci histoire Sénégal les familles di Doli moom kenn dutu leen fàtte ci histoire politique. d'accord am na solo ñu gis ne tamit yow ak sa rakk yi da ngeen di bokk yéen ñëpp ngeen def politique te bokkoo leen parti yi ngeen nekkee loolu. waaw loolu ni euh, li mën a juru rek mooy li ma lay wax rek mooy bi bokkee waajur bokk genn kër gi euh, nit ki nag moom mën ngeen a bokk waajur bokk kër kër gi mën ngeen a bokk lu ne mais bu dee ci politique kenn ku ne war naa mën a am gis-gisam ca du yàq dara la nga seq sa diggante ak moom. Euh, ndax euh, fii ñuy waxee yaakaar naa bi ngeen egg léegi am na témoin bu ngeen ci def ndax euh, le président groupe parlement fekk nga ko fi léegi muy sëñ Cheikh Bara Dolly ñu bokk ndey ak baay wane na ne li ñu boolee du politique wane nañu li ñu boole it moo ëpp doole politique ndax politique mën nañ caa wax liggéey ci génn ci muy liggéey sa réew la nan dox teewut bu xëyee day dem. ci ay commission assemblée dox défendre parti défendre réew mi. ñu bëri dañ naan jubóowu leen ñu nit ñu nit ci sun ci suñ tegtal. Euh, mooy maanaam ñu toog fi ñu toog di defander APR benn bokk yaakaar ñi ci liggéey li ñu liggéey suñ beneen rakkit ma nga fa ne di défendre bokk gis-gis jubóo gi ñu bari dañ koy faral di wax mën na noo wax ne du mëne nit bu ngeen gisee ngeen bokkut lu ngeen di défendre li ngeen di défendre bokkut bu ngeen dee wax ñu bari dañ naan jubóo biir fa nag lu ne mën na ci am mais li ëpp solo mooy li ñu boolee mooy moo ëpp solo lépp ci loolu moom tegtal bi nii gis ngeen ko. ca loolu mooy li ëpp solo lépp ndax lépp dana jeex mais liñ bokk moom du jeex mukk ba ilaa yu muy diini lépp am na solo daam politique am na solo naam ay parti am na solo mais li ëpp solo mooy liñ bokk mu ëpp solo ñoo bokk mbokk gi samay samay rakk lan mënuñoo am beneen mag bu ma bu ma féete kaw waa lu lu métti métti rek maay seen mag donte président de la république lan doon it maay seen kilifa loolu la yàlla dogal la li ci ëpp solo nag mooy wute yi mën naa am waaye liñ bokk daal mooy li ëpp solo ca ñi ngi koy jëm a doxal kemtu kemtulaay kattan ci sunu ndigalul waajur. macha allah am na solo ñu bëggoon nañoo xam tamit sa digganteeg ñenn politiciens yi nga xamante ni yéen a bokk département bi naka la demee. waaw ñi bokk département bi it euh, ñi ngi masla ñi ngi seq li ñu war a seq yaakaar naa ma tugg deux semaines avant koor gi fii ngeen toog fi la Cheikh Abdoulaye Gaye Ndefane ma yandu si ñu waxtaan weccante xalaat lu bari ci politique bi waaye loolu it man doon wax ne du politique ndax la ma bokk ak ñii rek la laa bokk Cheikh Abdoulaye waaye pour wane ne la it euh, fii euh, nga ma toog ci doyal yi. responsable yu bari yoo xam ne nii seq naa ko ñoom ñu xam ne tamit maa ngi fi ñuy demlante ak di dikk may demlante ñoom ak di diggante ñoom ñi ngi fi ñëw dama fekk mooy wane ne euh, waxtu wi ñu toll euh, bu Sénégal soxla ay affaire politique ay yooyu yëpp dañ koy teg fenn parce que fii ñu toll Sénégal la soxla euh, di wax ci politique sax ñaare man baaxul ma koy wax ci waxtu yi ndax jamono yi yëngatu yi amee yëpp buñ amee action sociale bu ñu def dañuy dem def ko buñ paree dañuy ñëw toog fii jël suñ kurus toog di ñaan yàlla ah, yàlla jeexal li ci jàmm kon jàpp naa ne it ñooñu ñu ñu bokkal ci wàllu politique jàmm luñu seq waaye nag euh, duñ ci mën a détaillé lu bari ndax jamono yi ñu toll ak fi situation yi toll ak fi réew mi soxla ak jafe-jafe yi doomu yaayam aadama yi nekk mu metti lool nga gis euh, barki ki dama dem tubaa gis euh, ay nit ñoo xam ne dangay gis ne ñi ay gor lan mosuñoo tàllal loxo di tàllal loxo loolu nag yow boo dee as gora ca waxtu ne ngay dimbale nit ñi ak di dox ci luy dimbale nit ñi da am aw mettit ba bokk na ci li nga xam ne it bu man lépp it gën rek mooy la Euh, ku baax ko waxoon muy sëñ Mbàkke Soxna Lo euh, as gor boo demee ba boo bëggee dimbale nit ñi doo leen mën a dimbale ah, lay gën mooy sa bët nga xaw koo dawale nit ñi ndax euh, boo dee da ngaa tàmbale dimbale boo gisee doomu aadama yi doo leen mën a dimbale day daal di métti ci sa xol kon da ngay daal di préféré rek nga toog ñu bañ la gis leen ba loo ci man boo ko mënaatee génn ñu gis leen nga jàppale leen dimbale leen jàpp naa ne mooy li ëpp solo kon foofu it dañ fi mën a jàngat ne ci wàllu politique bi da neex lool situation yi passé ban man cee gën a waxtaan lu bëree bëri. d'accord am na solo ñu bëggoon a xam tamit sa diggante ki nga xamante ni moo di président Sall ba mu jaral la lu nekk ba ci ay ballu fital Mbàkke gis nañ nga di ko ci recevoir ñu bëggoon a xam lan moo waral mbir moom sa diggante ak moom. xam nga président Macky Sall danoo ànd ànd bu yàgg man damay faral di wax ni bu dee nit kuy am loo ambition nit man bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo ko njëkk am loo parce que ban koy taxawal dara boobu kenn mësu ko taxawal dara bi ñuy ànd ak moom bi muy nekk premier ministre ñun ñu koy taxawal du ko taxawal mouvement ba mën nañoo wax ne boobu mooy mouvement bi njëkk jàppale président Macky Sall boobu à l'époque mi ngi nekk premier ministre Idriss Seck di soo ko bàyyi ñu fal ko premier ministre mouvement boobu mu ngi tudd woon mouvement am wadd ànd ak Macky jàppale wadd wax naa ko ci émission yu bari wadd ci dernière élection 2007 yi woon nañu ci recevoir ñu Euh, wax ñu li ngeen di lii lan la parce que boobu mouvement bi amoon na doole ndax maak ñett ko jiite woon am na ñoo xam ne ñu ngi ci parti bi waaye maag ku ñuy wax Moustapha Kane euh, ñoo ko jiitoon Moustapha Kane boobu jamono yooyu it mi ngi nekkoon benn PCA la nekk xuma fan la ko nekk waaye jamono yi yim nekkee assemblée sax moo nekkoon chef de cabinet euh, ak ku ñuy wax Amadou Yoro Ndiaye à l'époque jamonoy Awa Guèye moo nekkoon directeur du cabinet bu Awa Guèye ñun ñett ñooñu ñooy ñi ko jiitoon waaye yeneen i kàngam ñi ngi ci yoo xam ne ñun ràññee la tey ci politique ah muy Awa Guèye assemblée nationale premier euh, xaw ma deuxième vice président euh, ci la bokkoon yaakaar naa sar am na commission bu mu jiite léegi euh, Abdou Mbow mii ngeen gis ci la bokkoon ci gone yi la bokkoon treize ay treize mii ngeen gis ci ndaw yi leen bokkoon ci ñu bokkoon ci mouvement bi leen bokkoon. bi ñu demee à l'époque ba 2007 Macky Sall la ñu ànd ak moom campagne bi mouvement bi accompagné ko avant ñuy dugg ci élection yi président Wade woo ñu leeral ñu laaj ñu lan la ñu leeral ko ne ko de. Euh, euh, bi nga xamee ne laaj na am wàdd mooy lan euh, ñu ñu leeral ko lii la ñuy def pour jàppale man ba ma jëlee parole ma ne ko daal am wàdd lenn la mooy yaa def président ke Sall mu nekk sa premier ministre nga def ko mu nekk sa directeur de campagne nga def ko mu nekk sa deuxième kii di di parti ñu jëm ci ay élection kon danga nga koo gëm gëm gi nga ko gëm nag ñun bu deful loo xam ne dañ koy gëmloo nit ñi ah nan lan war a mën a gagné élection 2007. gis nañ ne xar nga ci sa tànk tubéy loolu élection présidentielle ba for nañ sax ci weeru béy ne fal na la benn poste. ñu bëggoon a xam poste boobu ban la. loolu ba ñu ci ñëw loolu ma lay nettali mooy kóllëre gi foofu la tàmbalee ñu reyante foofu Wade tamati bi ma ko waxee loolu euh, waa président rafet lu ko daanaka comme que loolu la rek parce que bu doon doon loolu da ngeen di yem ci Wade rek waaye comme que loolu la rek la amul problème bi ñu génnee président Macky Sall woo ñu boobu à euh, ñu daal ne. Euh, nan la seen audience demee ci laa ko leeralee na ko nii la demee waaye xëy na da góor gi neexu ko euh, mbir mi mu ne teg leen ko ci suuf ñu wàccee mouvement bi nag ba ni mu génnee 2007 euh, mu ñu gañe ko élection ñëw mu mu mu mu demal boppam ba muy demal boppam nag man demuma ànd ak moom damaa des ci parti démocratique parce que sama waajur sëñ Bara Dolly à l'époque mi ngi ci parti démocratique ca mag la ci boobu it ñu bari ñu ngi koy attaqué ñu ngi koy néewal mu demande man man naa des ci parti démocratique jàppale ko donte xam na ne sama diggante euh, Macky sàll xaritam la bi nga xamee ne yàlla dogal na président euh, euh, 2012 président Wade mm, jeexal man ci ci ci deuxième tour yi rek ci laa arrêté sama activité politique bi nga xamee ne Macky Sall gagné na muy daal di engagé sans condition pour jàppale ko boobu léegi maa ngi jàppale ko Euh, li nga wax léegi am na poste bu ñu jox euh, muy euh, conseil spécial bu auprès du HCC mm, loo xam ne man moo ma woo téléphone wax ma ko man nag am na yeneen yu ma yittee woon am na neneen lu ma bëggee woon du sax ñu la ndax yàgg nañ koo jàppale ci lu ay poste ñun ay nit lañ yoo xam ne dañuy daw ci luy jàppale nit ñi dañuy daw ci luy dimbali nit ñi mën nañoo jàpp ne sax Euh, am na ni yeneen i mbir yoo xam ne jàppale ñu ci moo ñu ngi ci ëppal doole loolu maanaam ci tegtal daal mooy euh, bari na yu ni yoon yu ni jàppale nit daal euh, ci lu nga mën caa jàppale doomu aadama yu moo ëpp importance non xeebuma xam nga asgor du xeeb cër sab nawle bu jëlee ab cër cëral la ko boo dee asgor gor la doo ko xeeb da nga ko ciy sant da ko ci gërëm waaye nag nit ku nekk dana am loo xam ne ci boppam moo ko gën a xamal boppam ku ne kon loolu moom xeebu ma ko ndax as gor la ki ma ko joxee asgor la lépp lu nga xam ne tànn na ko ca leen ko dénk maanaam tey mu yor mbandum ndox jël toqus ndox jox ma ko danaa ko téye ngir jëmmam waaw dama koy sante gërëm ko ko ndax it eh, am na ñeneen i nit xay na ñu ngi ko defalut xëy na lu eh, yéene ji mu am ba jël toq boobu jox ma ko maa ngi ko sant maa ngi ko cër. Mhm, ba tey yéene ji sa waajur wi amoon ci eh, ci ki nga xamante ne moo di Abdoulaye Wade ba tax ndax yaa ngi wéyal kóllëre googu. waaw xam nga politique dafa am nu mu demee kóllëre gi mi ngi fi ba tey dara jógu ci ndax nee la sama rakk léegi nga gis mu jógee fi muy Serigne Cheikh Bara Dolly président groupe parlement président Wade it fa mu nekkoon féete fa ci ñun comme ñun doon waajur it ma fa nekk ba tey waaye man politique dafa am nu ma ko gisee du yàq sama diggante kenn waaye politique dafa fiir. li mu war daal ngay def yow maanaam politique dafa fiir bu la gisee fu ne nga fay jaabante ci say adversaire politique nit ñi duñ ko dul gisee noonu politique dafa am nu muy doxee la seq sa diggante moom da nga ko xam nga téye ko nga seere ko waaye fa nga nekkit da ngay bëgg lu taxawal drapeau boobu ak engagement boobu du teeyit nga nekk ca waaye président Wade li mu nekk suñu waajur nekk suñu kilifa ci waajur ndax moo suñu waajur la tey jii mu ànd ak rakk di ko jàppale mën na noo wax ne loolu mooy li ëpp solo ca loolu du fi jëg bi ilaa yu mi ni mu walaabalee ci man noonu la walaabalee ci président Macky Sall walaabalee <laughs> ci Idrissa walaabalee ci keneen parce que président Wade kenn ku ci ne fa mu jaara yow loolu mënut a sóolu ba ilaa yu muy diini dañ koy ñaanal mu yàgg fi mais li ëpp solo tamati politique dafa am ay réalité de toujours rek bokkoo ci parti bi waxtu wu ne yaa ngi dem yaa ngi dugg yaa ngi génn loolu bu yàggee am lu lay ji. d' accord euh, malentendu bi nga xamante ñu ngi koy faral di nemmeeku sa diggante ki nga xamante moo di Moustapha Cissé Lo ngeen bokk benn département lan moo waral loolu. non Moustapha Cissé Lo amuñu malentendu man ci ni ma ko gisee. dafay nit koo xam ne day wax ay gëm-gëmam may wax samay gëm-gëm man nag su may waxee samay gëm-gëm moom xëy na ni nit ñi man di di déggee gëm-gëmam moom mënu ko dégg ci ma nit ko neen ko wax gëm-gëmam loolu mooy faral di am waaye bokkuñu département mu nekkatul ci département bi yaakaar naa mi ngi <laughs> Dakar kon sa Cissé Lo moom bokkatul ci département foofu moom je suis ndax loolu moom wax na ko waxati ko euh, am na nag lu ko fi jàppale waaye moom bokkatul ci département bi kon kooku it yaakaar naa moom samay wax pour man jeex na ci man moom pour man dossier buñ wëlbati bi la lépp li nga xam ne nag moom lañ bokk muy parti bi euh, nga xam ne parti bi leen bokk di défendre même couleur bokk tamati di jàppale président Macky Sall du mën a samay wax jeex na ci moom ci côté bu mel noonu bis bu ma jegee mu jëkk wax loo xam ne nii parti bi ma bokk loolu maanaam euh, engagé wut parti bi wala loolu bokkut ak ne moom ni mu doxee ci sama gis-gis donte mën naa parti bi noonu lay doxee waaye ci sama gis-gis noonu ci gisuma ne doxee na noonu danaa jëg ne d'accorduma ci lii lii moom mu wax d'accorduma ci demeewul nii nii la demee loolu moom kenn mënu ma koo tee def nii président mënu ma ko def keneen mënu ko def sama gis-gis la sama xalaat la. fit bi nga am ni kan moo la koy fit bi fit bi ñuy faral di nemmeeku ci sëñ Modou Baara. Euh, xam nga soxna si wax nga wax bu am solo xam nga man bi ma bi ma demee ba xam ba xàmmee nekk ci daara mu wax la lu yéeme euh, am na baat bu ñuy wax gase. am na kilifa gu ne ci dëkk bi ñoo bokkoon daara ba ñu gasee ci donga daara lam doon def muy waxtu mu ne ngay jotee ay tout tànk ngeen di jotee hmm. ban ñu gasee mu yor ab yaram ma yor sama yaram may dóor muy dóor bu baax may dóor ndànk ab yaram damm may dóor sama yar ba ba ba mu yëkkati kàddu ba ñëpp dégg ko ñu daal di arrêté xam ne gañe naa boobee ci laa démystifier baatu ragal parce que man ragal dama gëm ne boo xoolee doomi aadama ni ko yàlla bindee amul fenn fu ñu gis ab cër ñu ñu koy woowee Euh, euh, ragal maanaam ñu ko yow wooyee ragal amul ci doomu aadama euh, beneen bi ci des it bu ma gëmee ne yàlla lépp lu mu tudd ci ab jaam doomu aadama mënu ci dara laa ne kon lu nit di ragal ah, gisuma ko bu fekkoon da ngaa jëm Dakar doo egg kenn yàlla bu ma bind ko kenn mënu ci dara kooku lu jar ragalati ah feebar bii li muy bari bari ñu ngi ñaan yàlla mbas mi jeex waaye mbas mi tey ku ci yàlla wax ne da ngay dem kenn mënu ci dara. su fee l'occasion di ñaanal yàlla sax sun responsable boobu muy Basirou Gueye mi ci génne àdduna ñu ngi koy Basirou Gueye bi ne Gueye bi nekkoon di jàppale APR yàgg lool ci PDS ca PDS ba léegi si ñi ngi ànd sama xarit la ah ñëpp xam na ne mu ngi doon jàppale euh, président Moustapha Cissé Lo météo la mu ko doon jàppalee guddi ak bëccëg mi ngi ñëw ci man sama xarit la lu ma nekk mu ànd ju ko ci wax lu ma ko mën a jàpp jàppale kon moom it ñu ngi koy ñaan yàlla xare ko àjjana waaye euh, di wax ne euh, mbas mi it suñu borom indi ko fii moom laa waroon njëkk ubbi ubbeeku euh, ñi ngi ñaan yàlla yàlla jeexal ko mais li ëpp solo daal mooy ragal man damaa xamut fan lay nekk ci nit ba ma demee nag ba xamut fan lay nekk ci nit foofu boobu laa ko noppee démystifier ca it yàlla lu mu ci jàmm bi xam naa ne kenn mënu ci dara. kon jotul fi nekk ni yow ak Moustapha Cissé Lo ngeen daal di trouver benn terrain d'entente ginnaaw yéen a bokk parti bi. waaw mais xam nga terrain d'entente ñàkku fee am ñàkku fee bañ am li fekk nit kee ngi muy wax gëm may wax samay gëm-gëm. moom kenn mënu ko tee muy wax ay gëm-gëmam man kay kenn du ma tee wax ay gëm-gëmam ah léegi nag moom man terrain entendre ci man naa jël rajo bi wax li ma gëm ak ni ma ko gisee donte président la donte réew mi nii laa koy waxee nii laa ko gëmee nii laa ko gisee nga ne Modou Bara Dolly moom du jëkk wax ni mu gisee ni mu gëmee ak ni yow di nga doxalee baax na wala baaxul loolu kay bu fekkee ne loolu mooy teerantaan loolu am ko mooy illaahi bi di parce que man même président Macky Sall mais bu defee loo xam ne nii danoo bokk part bi gis naa ne jaaduwut normal wut damay jég de dénoncé dénoncé ko su ma ko manee bind ci suuf wan ko ne ko lii gërut ah comme lii am ci ci jamonoy jumaa yi bind naa yónnee naa wax naa woon sax ba egg ci nan woote bis boo xam ne dañuy ñaan Sénégal gépp ñëpp toog. mu mu président wax ak xalifa yi wax ak nit ñi kenn ku ne toog yor su kurus ñaan ah loolu ba ma bindee wax ko it fii ñu toll su fee l'occasion pour wane na réew mi fii ñu toll nit ñi dañoo war a toogaat ku ne sa kër donte dañuy toog ci jàkk yi wala ñu toog ci kër yi bañ a jël ay ay ay ci seen programme ñu xool nan lañ koy euh, jëlee ay barrière de défense ah ba nga xam ne maanaam euh, matukaay yi danañ ko jël donte ñetti nit la wala juróomi nit wala ci biir kër wala ci biir xalifa yi kenn ku ne jël alxuraanil karim ña nekk ci jàngu ba sax toog ñaan yàlla lii am ci réew mi am ci àdduna bi mu dañ jàpp naa ne bis boobu buñ ko woote woon Sénégal na di prier pour ñaan liñ am dana doon lu am solo parce que nag danoo wax ne ngànnaayu jullit mooy ñaan kon jàpp naa ne euh, nii mu ubbee jumaa yi yooyu yëpp euh, luñ rafetlu la waaye nag li ma la wax rek ci côté bi question bi ba tey bëgguma cee génn lu bari muy ci wàllu politique yi li nga wax ci bëgguma ci wax lu bari parce que c'était yow fi àdduna bi toll waaye daal li ma la wax ne la waxuma la Cissé waaye président sax bu génnee wax loo xam ne ci parti bi wala mu wax loo xam ne anga ah euh, euh, jàpp naa ne bokkut ak sama xalaat bu ma ko bindee jox ko waxtaanuñu ci weccoon ci ba mu convaincre ma da am naa droit jël na d'accorduma ci lii waaw loolu moom moom xàjjaluma ko kenn wax nga ko léegi say biir wax na jamono ji yaakaar naa ne mbas mi rëmbëri réew mi mu di coronavirus ñu gis ne boobee ba léegi président du génn di jug euh, di ñëw def ay déclaration yoo xam mi ngi koy amal jëmee ko ci askan bi ñu bëggoon a xam déclaration yoo xamante ni njiitum réew mi ngi koy def ban jàngat nga siy waaw xam nga soxna si njàngat moo xam ne rafet rafetlu naa ko lool ndax euh, ba mu jotee mu war a wax wax na et puis wane na parti it ma sant leen remercie leen ci wuy si gin ko wuy si parce que euh, suñ ko wuy si wutoon danañ dañuy da danañ ko am ak population bi mais kon dem nañ ba xam ne Sénégal rek ñu ñor président mooy président tous les Sénégalais woote na ñoom it ñu jëkk ñëw wuy si moom mi woote maa ngi koy sant ci xalaat bi mu am ba xam ne Sénégal moo soxla duutu doon ay parti duutu doon ay tariixa duutu doon euh, ay xeetu ay waaso seen jëmi Sénégal moo soxla moom en tant que mu am grandeur en tant que président xalaat ni moom ñëpp ko mën a bokk ba woote ñett loolu maa ngi koy euh, sant ci acte boobu vraiment wane na ne euh, président bu loolu lay jariñ xalaat lay jariñ du da ngay xalaat ne man rek la wala nangam nangam waaye xalaat na ne moo Sénégal yëpp ànd pour xeex loolu kooku ñu ngi ko ci sant waaye di santit parti opposant yi nga xam ne ñoom ñëpp ñëw na wuy si ci woote boobu ñoom it wan ne Sénégal la ñu leen ñor loolu yaakaar naa ne euh, euh, bu ñu wax euh, noonu Sénégal seen but but nu koy waxate waaw voilà kon lii tegtal la ci ci symbole boobu kon mbir la moo xam ne xam nga man français yi léeg-léeg yaa may kii en tant que bus bus loolu tegtal la ci bu wane ne Sénégal ñu ñëpp ko bokk kon action boobu it lu ma rafetlu la nii nga xam ne tamit mu ngi génn di yëkkati ay kàddu di ko wax ci bu jotee ba dernière sortie bi mu def mbir la moo xam ne mun rafetlu la parce que li tax ñu rafetlu ko mooy lan Euh, mooy jàngat ni doonte feebar bi dafa wax ne doonte feebar baa ngi yokk ñu xam ne mi ngi yokk xam nga lu yokk xam ne mi ngi yokk booba euh, jilaat matukaay yi dafa waroon a gën a sower ci lenn ci nit ñi. moom loolu moo jaaxal askan bi xam nga loolu ci nit ñi moom lan loolu lan doon xaar waaye euh, grandeur président Macky Sall laay ra foofu foofu li ma la fiy leeral mooy ab capitaine boo yoree eh, ab bateau di ko doxal fa ngay teg say longoor di ko xool ak fa muy ak fa muy egg ñi ne ci bët bi duñ ko gis foofu dañ fiy jàngat ne xam ne li réew mi àttan ak lu réew mi attanu xalaat na ne nañ ci jël ay matukaay mu suwer ci nii pour mu mën a saafara mbir mi waaye ndax buñ avancé ndax réew mi dañ ko àttan wala du ko attan hmm? foofu bu demee ba taxawaat arrière wàccewaat wàccewaat euh, poids bi nga xam ne jëloon ko mu metti ci nit ñi foofu ba tey beneen grandeur la. parce que man nit ñi am na lu mu doon demee mu jëlaat ko mu gën a sévère mu gën a méttaat ci nit ñi parce que nee waxoon naa lii naa gën a sàmm ni parce que feebar baa ngi yokk mais dafa wàccewaat bopp yaakaaroon ne foofu noonu ne dafa a jël dogal ndaxte bi ñuy am ay 10 yooyu noonu ci la gaaw tëj jàkka yeeg yu ni mel ak école yi ñu bàyyi ba am ay junni cas mu daal di tijjiwaat lépp ndax loolu du ngaañ ci Sénégal déedéet mbir mi demeewul noonu mbir mi bi muy jël mesures yi di tëj aéroport yi moo gën a moom moom lañ njëkk a def mais bi muy jël yooyu matukaay boobu jàpp na ne bu ko jëlee mbir mi dafa war a jeex bu baax parce que Mauritanie gim gi gim bi biñ ko jëlee engagement yooyu tëj lépp ci force na boobu la yëpp jeex mais président xam na Sénégalais yi bi mu ko jëlee teewul nit ñi ñi ngi doon dem partout euh, place yu bari doon ci tëj nañ koy nit ñi ñi ngi dugg fépp alors que ne ñi ngi dugg fépp feebar baa ngi gën a yokk mais xalaat na ne it su continuer nii mën naa gën a jur ngaañ ci parce que kenn ñaanutoon yàlla Euh, ne dana dem deux mois yi ñu mu dem mu dem ko ñëpp jàppoon na ne ay semaine lay doon weer lay doon mais comme que mi ngi dem deux mois mi ngi monté ca bu monté société euh, bi ñoo koy gën a yëg ci jàpp naa korona bu moytu fin la ñuy wax kon euh, nit ñi dañuy xiif ah léegi nit ñi nag di xiif coono yi di ànd ànd ak dam yaakaar naa tamati feebar bi xëy na lu àdduna bépp wax la waaye waa lu àdduna bépp wax la waaye lii lii dee ci ci ci ci sibru ah lii dee ci yeneen feebar yi mu ëpp fopp ñii dee ci feebar bi waaye nag feebar la boo xam ne dañ ci war mën a jël ay matukaay parce que euh, feebar la boo xam ne crise mondiale la indi ci adduna bi yëpp jafe-jafe la am ci adduna du Sénégal rek ah, kon nag en tant que président bu demee ba xoolaat jëlaat ay engagement am wane ne société sénégalaise bi kat mi ngi continuer teg nañ daan yi mi ngi continuer di metti ci ñoom ci metti gi mu metti ci ñoom it mi ngi continuer di jur yeneen i euh, euh, ay ay ay ay gàllankoor léegi nag nan ko woyofal kenn ku ne na jéem a xool nan la ñuy def pour mu sàmm boppam man jàpp naa ne nag euh, mbir la moo xam ne nii mu mu acte la bu noobal acte la bu rafet xanaa kay ñu accompagner ko ak ministère yi ñu jël euh, ministre de l'intérieur wax ko ñu accompagner ko ak engagement boobu xool naka lañ war a mën a doxalee ba nga xam ne nag euh, nit ku ne nag yaa mag mu ne yaa mën a faj sa bopp ñu xool nan lan mën a def kenn ku ne nga jël say engagement kenn ku ne nga jël say kii parce que confirmation bi sax ci yoon damaa waroon a takk ab kii wax ak yow ah masque di wax ak yow ci yoon ah, ci man ci li ma jàngatit eh, mooy que ne yéen ñëw ay masque ngeen waroon takk eh, mais ñi ngi jël suñu temps ne ci àll bi pour confirmer wu pour bañ a génn bañ a dem bañ a jaabante ba buñ génnee war a jàppale nit ñi ñëwaat toogaat loolu lépp pour sàmm eh, loi yi nga xam ne moom la nguur gi jël la waaye ñu sant ko ci act yi nga xam ne def na ko muy doon yoo xam ne yu am solo la. jox nga ko sànq muy couvre-feu bi ak état d'urgence bi nga xamante ne ni defoon na ko ci ñaareelu génnam ndax loolu am na benn changement ci ci jamono ji ndax gis nañ ne tëj nit ñi guddi ñu génn bëccëg gi ndax bëccëg gi sax moo ëpp la nit ñi di gën a dajaloo ndax loolu faj na dara ci jàngoro ji. non maanaam faj na ci dara parce que la moindre chose wàññi na yenn heures yi pour nit ñi di duggalante rek di génnante euh, xëy na nag feebar beeg société sénégalais yi ni mu doxee euh, dana jafe lool lool lool. pour mu muy gën a dellu gannaaw man loolu moom naka njëkk dès le dama ko gëmut man li ma gëm rek mooy feebar la bu nar a ànd ak ñu di dox parce que ni ni dundee la hmm? ni ni dundee la léegi-léegi dañuy dem ba yàgg sax dañ ci fàtte ne ñu ngi ci ñu ngi ci problème boobu parce que léegi rek jox naa jox naa la ci tegtal bala ma daa da wax damay war a takk masque ah, ci yoon yow même chose moo tax ma ne la Sénégal yi seen situation ak seen dundeen c'est difficile pour euh, lu mel noonu euh, ñu génne ci noonu mais ko na ñu siwar li nga xam ne mooy programme yi nga xam ne état bi jël na ko sàmmonteeg moom ndax ba ci jumaa yi rek damay faral wax ne jumaa yi képp boo xoolee ne jaamu yàlla mënut a ñàkk euh, ñu ubbi ko it mënut ñàkk ndax it euh, ab jullit moom fu muy ñaanee dem fa foofu la baaxoo ay ay mbir la yoo xam ne tamit su borom moo ñu ko digal waaye teewut it boo xoolee tamit ci biir jumaa yi tey da ngay dem teg fenn sab jë boo jegee keneen tegaat fa jëm ah bu waxtu wala de su keneen tegaat fa jëm loolu mën na noo wax ne it mën naa jur leneen ak leneen ak leneen waaye li ëpp solo daal mooy euh, euh, yàlla ñu ko yàlla aar aar réew mi aar àdduna bi ba lii mu teggale ko ci jàmm waaye mbir la moo xam ne mu jafee mooy tollu daal mm. bi mu génnaatee ci la wàññi heure couvre feu bi daal di ubbiwaat li nga xamante ni moo di jàkkee jumaa yi ne waat xale yi dinañ delluwaat ca classe ba le 2 juin ñu gis ne mesures yooyu yu bëri ñi ñi nanguwuñ ko ndaxte démb gis nga àjjuma ji ñi julli ci ay jàkka ak i jumaa bëriwul ci réewum Sénégal ndaxte ak élèves yi tamit nee na ñoom it duñu delluwaat ndaxte affaire yi dafa jàmp ndax euh, yaakaaroon ne ndax président attanatul situation moo waral mu génn wax mais président dafa attan situation xam nga sëñ dafa am loo xam ne ci réew lu nit di bàyyi xel ci kilifa la kilifa jël engagement natt réew bi xool réew mi jàngat réew mi gisaat ci yeneen i borom xam-xam yi ñëw indilaat ko leneen mu xam ne lii baaxul ci réew mu taxaw delluwaat gannaaw ne lii nan doxalee ne nan doxalee yaakaar naa loolu honneur bu mag la xam nga li bon ci kilifa mooy nga wax ne lii ma wax duma ko tebbi mukk bi bu nit ñi doon dee di jeex doo ko bi loolu bon ci kilifa euh, entourage bi am na ñu baax du ñëpp a baax waaye am na ñu baax. waaw entourage moom am na ñu baax am na ñoo xam ne ñu koy conseil conseil bu baax am na ñoo xam ne ñu ngi koy wax lu baax waaye foofu fekk tamati buur wala sëriñ wala keneen ña ci nekk ña nekk ci ba tamit dana am ñu baax dana am ñu bon loolu moom est valable pour tout kër gu mën di doon suñu groupe presse yi sax bu ngeen ci demee da ngeen fekk ñoo xam ne ñu jubal lan da ngeen fekk ñu jubalul mais li ëpp solo daal mooy am ne ñu baax la koy conseil conseil yu baax yoo xam ne nii demee ba sensé wala mu am yeneen yu bees yu am docteur yi indi ko wala wàllu intérieur lu mel ne ministre de indi ko ci ay information parce que mën na noo wax ne président moo ëpp ñëpp ci ay information ci àdduna ci Sénégal alors que yooyu taxaat mu jàngataat xoolaat xoolaat nan lay defaraate ab toogaayu nit ñi yan situation lu di war a mën a jur yàpp naa loolu nit ñi dañ ko war a sali acte boobu waaye yaakaar naa luñ ci wax waru waruñu ko ci am. Mm-hmm. askan bi jaaxle nañ lool ba tax mu génn daal leen di ki jagleel li nga xamante ni moo di ay aide alimentaire ak wàññi li nga xamante ni ne da leen di fayal seen facture yeeg yu ni mel te gis nañ ne ñenn ñi jotuñu seen wàll ba léegi chauffeur si boo ko gisee bi mu génnee bi passé waxul dara lu jëm ci transport bi ba boo rombee ci talib da nga leen gis ñu nekk si mbedd mi di ñaan ak yu ni mel ndax loolu président bàyyi na ko xel bu baax. waaw oh xam nga président bàyyi na ko xel bàyyi na réewam xel ndax boobu lu am solo la aide boobu lu am solo la euh, maanaam joxeen wi xëy mi ngi am yëq-yëq euh, maanaam nan defee marché yi man am na côté yu ma ci am na yu ma ci d'accord parce que <clears throat> mënoon koo gën a yaatal euh, ñay gagné marché yi it mu doon ay doomi sénégalais yoo xam ne nii dañ ciy dugg parce que man li ma la wax rek dëgg laay wax dafa am loo xam ne toujours dama koy défendre parce que sama honneur du jeex mukk ba ilaa yu mi diini lu mu mën di doon rek mën naa jeex ba de sama honneur nan ko joxee nan joxee maanaam marché yi moom d'accorduma ci amaatu waaw kooku moom d'accorduma ci parce que mënoon ko gën a yaatal Sénégal yi mën ko mais euh, acte bi ci tey génnee ay ndimbal jox ko doomu aadama yi ñi ko soxla lu am solo la ca acte bi ci président def lu am solo la ba tax na loolu ñi ngi koy rafetlu ndax it euh, fu ci bari egg na fa mu ci war a egg parce que bu njëkk nañ jëlee woon def ko yàlla def nañu soppiwaat ko soppi duñ ko soppi parce que bu fekkee bu njëkk la ci bourse familiale wala leneen da nga gis koo xam ne kër goo xam ne da nga fa dem gis ku bindu jabaram bindu doomam bindu wala gardien bindu wala keneen bindu ah euh, mais gannaaw bi biñ ko seggaatee ba nga xam ne yooyu yëpp segg nañ ko ba mën a egg ci ndimbal yi fi ñu loolu mbir bu am solo la waaye loolu rek dafa doyu daal li doyu daay mooy donte moom def na li mu war a def ah, mooy nit ñi ñi nga xam ne yor na ay ndimbal kenn ku ne fa nga dëkk nga dem fa jéem a xool nooy def pour dimbale gox yi kenn ku ne jàpp ci donte am na ñu koy def ñi koy def ñu ngi leen di remercier ci loolu waaye ñu gën ci yokk ku am ñaar jox benn nit ñi Euh, euh, téye benn yaakaar naa ne loolu buñ ko gënee yaatal ndax réew mi réewu solidarité la Sénégal rek ngay mën a taxaw ci benn buntu kër xamuñu la xamuñu la euh, añ jot ñuy añ na la ñëwal ñu añ nga dem añ kon loolu ci Sénégal rek la am ci jàpp naa ne wàllu social googu Sénégal di dund suñ ci jàppee mën nañoo bañ a indi jafe-jafe xanaa kay mu gën a dooleel ministre de agriculture ci nawet bi ñu jëm ba nga xam ne nawet bi nit ñi danañ mën a wàcc ci tool yi bay ba ci sa si parce que xam nga liggéey euh, Sénégal dafa am loo xam ne fu bari amu ko ñun dund nañ Europe dund nañ itali dund nañ Suisse Allemagne fu ne dund na fi ci Europe mais boo fa demee ci yu bari ay montagnes fa am pour ñu bay dañuy gas montagne ya euh, xekker ya fa suuf pour ñu bay mais Sénégal rek ngay dox foo xam ne lépp suuf la yàlla dogal tey ñu dem bay wax ay pétrole sax di fi feeñ yàlla dogal aw rek lu ne am fi kon jàpp naa ne suuf si buñ ko exploité ci réew mi ëpp doole muy Amérique lan moo ko am amal doole bay kon bay réew mu dox mu egg fenn fi rek gannaaw yàlla bay la kon nit ñi suñ wàccee ci tool yi nguur gi jàppale leen accompagner leen ñu wàccee ci tool yi bay doonte safoor si la sëriñ si euh, autorité yi euh, jàpp naa ne suñ doxalee dans trois mois ci kanam quatre mois te seeg nawet bi di jeex mën na noo wax ne euh, li nga xam ne crise bi am na ñu war faa mën a egg ci ay xiif ak yu mel noonu mën nañoo wax ne suñ si concentré ci 4 mois yi ñu jëm yàlla mën nañoo teggi loolu ba duñ ci tege ndax euh, information yi ma am ci météo wax nañ ne maanaam ren nawet bi dana bari ci seen i xam-xam yi àdduna waaye su ko yàlla baree la ndox mi ci mu ñëw ànd ak jàmm parce que man ndox lu may wax mu bari bu bari na ànd ak jàmm euh, bu ba jàmm daal gëm naa ni góor nguur gi encadré ministre de agriculture ministre de agricul agriculture engage engagé euh, maanaam accompagner ñi nga xam ne ñooy béykat yi ba nga xam ne li ñu war a am danañ ko am mën naa wax ne suñ jëlee jëlee trois mois yi nawet bi jàpp quatre mois nawet bi jeex mën nañoo génn ci situation yi ñu xaw xalaatoon wala lu ci ëpp mën naa jeex kon jàpp nañ daal loolu suñ gisee. gis nañ ne sànq tamit ne nga jamono ji ñu tool nekkul jamonoy politique mais nemmeeku nañ ko fan yi kii di Ousmane Sonko génn na def déclaration ginnaaw bi président Sall defee déclaration ñu bëggoon a xam ban jàngat nga def ci déclaration. Eh, xam nga mooy li ma lay wax rek wax dafa jooy ñu ñu ne ko loo jooy mu ne dañ maa wax fu mu wërta waxee ak dan maa wax wax waxtu wu nu war waxee wax wax moo jooy ñu laaj ko na ko wax looy jooy mun ne dan maa war a wax dan maa wax fu mu ma waxee ah ak maanaam dan maa wax fu ma warut a wax jot moom li muy wax lépp da ko waroon a garder ban weer euh, situation bi non non xam nga ñeel situation bi mooy danoo wote projet de loi jox président pendant trois mois pour mu war a doxal trois mois moo war a doxal nañ bàyyi trois mois yi jeex ñu xool situation muy def ay analyse mais xam nga Sénégal danoo bëgg bës Sénégal dañoo bëgg tamati mën a mën a yëkkati loxo euh, ñu ñun kilifa yi kenn ku ci ne ci ñun da ngay am benn conseil de communication ah léeg bu dara yëngutoo ñu ne la il faut la boo xam ne bul ko ratee faaw nga def bës faaw nga def lii boo waxee lii war ngaa wax lii yaa ko njëkk wax yaa ko def mais. yooyu ak fi situation réew mi toll da ko laaju situation réew mi fi mu toll yooyu da ko laaju situation réew mi fi mu toll mooy bokk ndey bokk baay ànd yëkkatindoo dóorandoo ku ne la nga am nga dimbale ci ka ba ngeen ci situation. waaw nan nan nan yërëm population bi ñu jublu. fi ñu jeexalee rek mooy sa diggante ak ñi nga xamante ne ñoom nga bokkal Cheikhul Khadim ñu bëggoon a xam nan lay doxee. waaw di sant yàlla bu baax a baax ci sama digganteeg ñoom. ndax euh, nit moom bu fekkee da ngeen a am lu dul leen ca mënu leen ko séddoo muy sëriñ tubaa xaadimu rasul kenn ku nekk mu am lu mu la cëralee ndax damay war wax na sant gin sant mbàkki bokk ci moom loolu moom ñun mënuñu koo fayee seexul xadim euh, mën nañu wax ne sant busa bu ne mbàkki rek ni dugg na ci biir mais li ma mën a jàngat mooy lépp lu man ci rafetal ñu ngi koy doxal suñu diggante di ko sàmm ci xam ne yoon wii ñu am mu yoonu murit amuñu lu ko ëpp amuñu leneen lu ko gënit ca it sëñ Tuubaa liggéeyal nañu loo xam ne boo xoolee kilomètres yi nga daw ba ñëw ci dëkk bii gis dëkk bi ni mu mel gis yi fiy am gis dëkk bi li mu am lépp lépp Seexul Xadiim ca moo ko digaloon su maam kon loolu moom képp ku la ko defal ah, li yéen ña ko bokk ci mënu leen koo séddoo ndax li may faral di wax rek la ma am ci Seexul Xadiim la sëñ Abdou walla sëñ Bas wala keneen am ko ci sëñ Tuubaa man sëñ Moodu mënu ma ci dara man miit li ma am ci sëñ mënuñu ci waaye lim bokk muy sëriñ tubaa ji lam ñu digal mooy ñu bennoo yoonu murit kat li ko amal doole lépp mooy nekk gi nekk genn kàddu nekk ci ndigal nekk ci nekk bennoo moo tax lépp lu mu song rek suñu borom jox lañ ci doole kon nag nekk bennoo googee maa ngi ñaan yàlla mu sax ànd nekk benn wéy ci ndigalu sëriñ bi ndax kat ñun dañoo tënk ci koo xam ne képp ku fi nekkal sëriñ tubaa yaay sëriñ tubaa lépp lu mu ñu digal bu laajoon su bakkan yi sax dañ ko war a joxe yoonu murit force boobu mooy li ci nekk lañ ñu jàngaloon ñu nekk ci maa ngi ñaan ndaw ji ñu continue nekk ci loolu parce que yoon wi dafa nekkee lenn loo xam ne Serigne Touba bi mu ñëwee ay mbokkam ñëpp wër ko ànd ak moom ci li nga xam ne moom mooy liggéeyam bi ay seex yi ñëw ànd ak moom ci liggéeyam bi dafa am ci yoon woo xam ne cele leen tegoon ndax mas na leen dajal ne sama mbokk yi na ngeen ma moytu sama taalib sama taalib yi moytu leen ma ci sama mbokk yi yooyu tegtal la waaye lépp it ñu def ko ci noo xam ne daal gën a warmaalante Euh, gën a jàppante gën di demalante di dikkalante euh, ndax wax naa la ko fii démb rek ba fii Cheikh Abdoulaye Gaye defaat mu ñëwee ci semaine bele euh, ma ne ko mag ñi di nii lan daan doxee dan daan jekki-jekki di toog ba yàgg kenn jég dem gane ji moromam ah daal di saafonteeg moom maslaanteeg moom ñu weccante xalaat waxante ci xam-xam kenn ku ne jég dem bu ëllëgee keneen def ko kenn jël doom tuddee ko doomam kenn jël doomam jox ko nit loolu la mag ñi doon doxee Euh, mi ngi fi am ba tey waaye mm, dafay mel ni day gën di néew kon loolu lu mu ko mën a indi du ko gën a dundal ci duggalante bi ak jamono ca it di seerante lu baax parce que nit ki moom bu fekkee ne man damay faral di wax dafa am benn bis menn mbokk ñëw pale ay mbokk nekk pale ci ab Ablaye Wade di am menn mbokk mu doon yëkkati ay kàddu ban koy wax ma jëkk aalu ci ba ba am nu mu leen nu mu leen traité loolu bëgguma ci jaar ak weeru koor loolu ba mu amee ñoom it ñu am ko ci mën leen yéen yabu leen kooku man ngeen yëpp ndax man mi fi mbokk ngeen di ko tudd di am lu ngeen ci wax kon solidarité boobu moo war a nekk ci ñun fépp fu ci nit nekk na jàpp ne lépp luñ ko wax mbokkam rek mel na ne moom lañ ko wax na jàpp ne it fépp fu mu mën a nekk rek mbokkam la fa nekk ndax ñun ñëpp kat bu ñu dee wormaal wala ñu doon dara wala ñu ñuy tudd ñu tudd leen Serigne Touba Seexul Xadim rek a tax bu dootoon Serigne Touba ñun ñoom ñëpp yam duñ kenn Serigne Touba rek tax ñu nekk kenn kon ka ñu nekk kenn dañoo jégal ñu booloo dañoo jégal ñu ñu jàppalante dañoo jëgalit ñuy seedante lu baax dañoo digalit ñuy taxawante dañoo digalit ñu bañ a xeebante ndax fii mu toll moom toll na foo xam ne koo xeebal mu téye boppam ah, ndax kenn ku nekk la nga am ci sëñ Tuubaa ah, waaye ñu gën a gën a joxante ceer gën a sàmm li nga xam ne moom la ñuy sëñ Tuubaa bàyyee sax ci siraatal mustaqiim kenn ku ne la sa maam liggéeyal ci sëñ Tuubaa nga aar ko sàmm ko sàmm sa dëkki maam yooyu sàmm ko ba nga xam ne it wéy ci diglu sëriñ Tuubaa jàpp naa ne loolu daal eh, sax ci siraatal mustaqiim jaamu yàlla yaakaar naa ni loolu lañu ñu sëñ Tuubaa jégle woon ak liggéey parce que it damay faral di wax ne lu mën ci liggéey ñun sëriñ si nan ko def ndax jamono ngi ñëw boo xam ne soppi ku mën na am waaye nag euh, bu la fekkee nga nekk ci yoon di liggéey euh, loolu ndimbal lay doon lépp lu taalibe indi wala lu taalibe indi bi la ci ëpp solo moom dana fekk nga nekk ci aw yoon woo xam ne ca yi nag nag sëñ Tuubaa nekk jekk liggéey la ñu digal yi fi jaar yëpp ba ci Seex Saaliw mii fi mujj ñëpp xam na ne ay tool la amoon moo dàqoon a bay ci Afrique ah, kon ñun ñëpp it nan nekk ci yoonu liggéey ndax boo liggéeyee danga jomba wax lu bari da jomba def lu bari da jomba jaar fu bari kon liggéey bi sëñ bi dañu koo digal du toog rek yor sa kurus <laughs> waaye dalaa digal booy liggéey nga mel ne du doo génn àdduna tey ah booy jaamu yàlla it nga jàpp ne tey suba ngay jigéen àdduna kon lu yoon woowee nañ ci gën a góorgóorlu ñu ndaw ñi gën a liggéey gën a jaamu yàlla eh, gën a saxit ci digalu sëriñ bi gën a wéy ci ndigal it gën a am kilifa yi. waaw ñu ngi leen di sant yéen ñëpp xëy na gëj ngeen ñoo dégg Euh, di woon lend lu dut euh, jafe-jafe yi nit ñi rek rek ak jafe-jafe yi nga xam ne moom laa di waaye fu mu ñu ngi yor suñ kurus di ñaan yàlla euh, mbas mi suñ borom teggi ko ba nga xam ne dana ko mën a jeexal ci jàmm ñi ñëpp delluwaat ci seen i activité nit ñi jàll delluwaat ci seen i jaamu yàlla man koo matal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant it convergence bi nga xam ne it moom maa ko jiite nga xam ne mooy taxaw noonu mag ñi ca tariixa yëpp nekk ci ci Sénégal ñoom it ñu ngi ci di yëkkati ay kàddu yu rafet fu mu toll di rafetal ak di masalaa di wootee bennoo gu diine bennoo gi bennoo goo xam ne it maam yëpp dañ koy bennoo wax naa la ci gàmmu gi rek ba ma demee ci sañ sëñ euh, Babacar Sy Mansour am na kàddu yu rëy yu mu yëkkati yaakaar naa mi ngi ci internet bi ko xool dañ ko gis ah, wax ko ci bennoo gi kër diine yi war a bennoo wax ko ci kuréel gii ñu ñu jiite muy convergence taxaw noonu mag ñi nan la war a taxawee ci ànd nekkal benn tarixe yi ba kenn ku ci nekk la nga nekk ak la nga xam ne sa maam rëdd na ko nan jàpp ne leen rek mooy lu ko lëkkale lépp mooy li nga xam ne moom la ñu suñu borom sant digal ñu ko wax ko ci alxuraanil karim muy waxtasimoo bi hablillahi jami'an wala tufaraxoo loolu moom la ñu maam yi digaloon yoon woowu lañ ñu tegoon moo ñu nekk benn xam ne it moom innamal mu'minuuna ixwatun fa bay bayna axawaykum loolu bu buñ ci saxee gën a jàppalante gën a nekk benn mën na noo jàpp ne suñ doolee lay doon ndax ñoo bokk lu ñuy xeex ca buñ ko defut nag ñeneen mën nanoo jege ci yeneen ñeneen ñin tudd sax di tudd yeneen yi tur di tudd yeneen ña ngay def seen bu nekk benn asmaan ñun ñi nga xam ne diine lañ fi nekkal maam yi it benn lan nu nekkoon ñenn ñu ci ne sañcoon nañ ay dëkk def ay seex ñii def ay muxaddam waaye seen tasaaroo googu yëpp dañoo bëggoon lu du tasaaroo diine lañ taxoon ñu xaajali ko noonu waaye jubluñu ci woon xaajali ko ndax ñoo bokkoon lu ñu woote kon nañ jàpp ne seen tasaaroo googe lañ ci bëggoon mooy diine ji sax dem na ba tey quatre-vingt-quinze pour cent yëpp nekk jullit loolu lañ bëggoon waaye ñun nañ leen sàmmal nekk googe ñu nekkoon benn ba nga xam ne fu ñu a dajee fu nekk bu nekk yow da leen gis na ni saafonte wax na ne am na Seydi Alaaji Malik nekkoon ak Sëñ Tuubaa ba kenn ku ne di gunge moromam bu koy gunge day dem ba jeexal kenn que dëppaat gungewaat ko jeex loolu lépp ak yëgoo la ak safoo la woon ak nekk ko benn ca benn yooyu la am ci tariixa yëpp na amee Laayeen Njaasaan amee euh, Ñiseen dina Baay ñëpp xam na ne Seexul Islaam ak Sëñ Fallu ñoom ak Sëñ Babacar dafay Sénégal euh, lépp Laayeen yoo ñëpp cene euh, ba yooyu yëpp waa kër Ahmadu Njigéen ñëpp ñun ñëpp benn lan ah kon jàpp na ne it jaxase googu it pour ñun ñëpp ñu nekk benn lu am solo la te ñu koy dundal lu am solo la yàpp naa maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen sant yéen it di baal wax ak ñëpp ci koor gi di xam ne it weeru njégal la weeru yërmande la di ñaan yàlla it mboolem ñaan yuñ fiy ñaan yàlla na ko suñu borom nangu mbas mi it yàlla na ko suñu borom àndaale ak koor gi mu ñaan yin ci ñaan yëpp mu jeexal mbas mi ci Sénégal waaye jeexal ko ci àdduna bépp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu macha allah ñu di ko jaajëfal moom sëñ du Bara Dolly ci disponibilité bi nga xamante ne ni am na ko ñuy ñaan tamit mbas mi daal di génn réew mi ba activité yu bëri daal di mën delluwaat te nañ ko daan defee canta ngërëm ñeen leen amee internet yi ñu leen di jox dig daje ba ëllëg ak jàmm jërë ngeen jëf